بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى سنو جتاي بكي دنشو دنشي بقونا إني لنشي أحكام زكاة الفطر لنشي أي أتي يؤجوشي لنيتدي مورم كور laa shakka ni li nga xam ni dafa bokk ci weeru koor te di tëj weeru koor mooy joxe muurum koor jullit bi nag war na ko lépp loo xam ni xeetu jaamu yàlla bu muy def war na ko mu xam ci àtte yi mu xam ci àtte yi ci lim ci war a xam ngir mën koo jooxe nim ko war a joxe ndax ku xamul li nga war a def amaana doo ko defe ni ko war a defe kon ñu ànd incha allahu taala bokk jukki ci yenn détail lu aju ci ahkaam zakatul fitr li ci njëkk mooy ما xukmuha lan mooy attewu zakaatul fitr maanaam muuru koor liñ ci njëkk xam mooy hiya farida farata la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom moo ko farataal te li nga xam ne nag mooy almaalum mooy li ñu li ñëpp xam wala li ñëpp war a xam مي أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله توب ينتبه صلى الله عليه وسلم دفا تي توب يالا سبحانه وتعالى كم نيكو يالا سبحانه وتعالى وهي من يطع الرسول فقد أطاع الله كيبكو هامني توبنا ينتبه صلى الله عليه وسلم دق دق توبنا يالا سبحانه وتعالى حق فهي فريضة تجب على kulli muslimin kon xamal ni lii di muurum koor farata boo xam ni dafa nekk ci loosu bépp jullit sawaan kaana kabiran doon moo xam mag la aw saxiiran moo xam la aw zakaran moo xam góor la aw untha wala mooxam xam jigéen la moo xam ku gore la kon dangay xam ni daal ndekete mbuunum koor farata la ci bépp jullit bu ñu nee farata la nag ci bépp jullit loolu lay tekki ni ki nga xam ni moom yéeféer la du jullit moo xam chrétien la moo xam juif la kooku kenn du ko génneel zakaatul fitr donte bu fekkee ni it yow yaa yor dundam yow jullit bi ba pare mi ngi ci sa biir keppaar mi ngi si sa biir kër yaa yor dundam moo xam sa euh, ku lay liggéeyal la sa surgo la walla sa euh, jànq la wala ku lay liggéeyal la nga xam ne yaa yore dundam kooku kenn du ko génneel zakaatul fitr حديث بيغا خامني موم موي دغرل لي ولا موي ساخال لي موي حديث بيغا خامني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نانا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين xadis bi cheikhul albani rahimahullah daf ko saxal ni xadis bu wér la kon xadisu abdullah ibn umar radiallahu anhu ci ni wala abdullah ibn umar nee na yonente bi nga xam ne mooy muurum koor saaca wala maa ngi jégalu saaun nekk li ñuy tuddee saa min tamar ci tàndarma gu wow wala ci li nga xam ni mooy sha'ir te sha'ir nag mooy uh, barley waaw barley mu mel na dugub ci képp koo xam ni moo xam jaam la moo xam ku gore la góor walla jigéen minal muslimin ci jullit ñi minal muslimin ci jullit ñi kon الرجل يخرج على أهل بيته wala ala man yunfiq alayhim kon kenn ku ci nekk ci borom kër daf la war nga génneel ñi nga xam ni ñooy sa waa wala ñi nga xam ni yaa yor seen dund ñi nga xam ni sa ay waa kër lañu wala ñi nga xam ni yaa yor seen dund mathalan bu dee masalan yow da nga yor sa dundu papa ak sa yaay ñoom ña nga ca dëkk ba wala ñoom ña nga ca beneen dëkk lañu dëkk moo xam masalan yow yaa ngi nekk euh, yaa ngi nekk Jurbel wante yaa yor sa dundu papa ak sa dundu yaay ñam ñoom ña nga nekk masalan euh, Ziguinchor for instance kon yow yaa yor seen dund kon bu boobaa yow yaay génne seen muuru koor ànd ak sa ahlal bayit maanaam sa waa kër moo xam sa soxna sa ay doom yow yaa leen war a génneel li nga xam ni moom mooy seen muurum koor wa tifl fi batni ummihi yustahabu ixraaju zakaat ki nga xam ni dafa nekk ci biiru yaayam xalel bi nga xam ni dafa nekk ci biiru yaayam kooku sopp nañu baatu sopp nañu ñu génne waaleel ko muurum koor ki nga xam ni liir bi nekk ci biiru yaayam sopp nañu ñu génnaa waaleel ko li nga xam ni moom mooy muurum koor kon lii moom mooy àttewu muurum koor ñaareelu tomb bi mooy amma xikmatuha lan mooy maanaam eh, xereñ bi nekk ci génne muurum koor ban xereñ moo nekk ci génne muurum koor falaha xikmatun kathira xamal ni muurum koor de vraiment bare na ah njëriñ yi nga xam ni moom moo ci nekk bare na njëriñ yi nga xam ni moom moo ci nekk bokk na ci al ihsan ala al fuqaraa bokk na ci di rafetal jëmele ci ñi nga xam ni amuñu dañoo seen loxo jotul seen ginnaaw waaw kon bokk na ci rafetal jëmele ci ñoom kuffuhum an suaali fi dalika al bokk na ci tamit euh, bañal leen ñuy ñaan wala ñuy yalwaan ci bis bi nga xam ni mooy bisu bisu feet bi bisu iid bi ba ca topp mooy xuluqun karim mooy wane jikko ju rafet ndax joxe ak dimbali koo tane loolu ci jikko yu rafet la bokk beneen bi nga xam ni bokk na ci xereñe génne muuru koor mooy izhaaru nicmatillah di wane di fësal xéewal gi yàlla subhaanahu wa taala sotti ci yow bàddil la ko kon ndekete génne muuru koor dafay bokk ci di fësal bokk na ci di fësal li nga xam ne mooy xéewal gi yàlla subhaanahu wa taala sotti ci yow bokk na ci tamit ci li nga xam ne moom mooy xereñ bi nekk ci weeru koor mooy tathiir li siyaamik mooy dafay raxas ak di setal ak di euh, setal li nga xam ne moom mooy koor gi nga wóor imaam waqii ibn jarraax dafay wax mu ni zakaatul fitr maanaam muuru koor dafa mel ni ci koor li sujuutu sahwi nekk ci julli maanaam ki nga xam ne dafay julli jamu ci julli gi wara def ñaari sujuut gannaaw sëlmal wala laataa muy sëlmal ni ñaari sujjóot yooyu di ñëw di euh, defaraat julli gi di defaraat yàqu-yàqu gi nekkoon ci julli gi nee naka noonu la muurum koor mel ci lii nga xam ni moom mooy mooy woor loolu imaam waqir ibn al jarraax moom moo ko wax la budda lil insaan nit ki nag mënta ñàkk xilaali siyaamihi xasala minhu taqsir nit ki mënta ñàkk ca ba muy woor ci jamono yi muy woor muy am ay gàtt-gàtt muy am ay rëcc-rëcc مي أم أي مانكة مانكة حصل منه ذنوب من تنياك كي نخمني أجي وار لا تبا مي وار أي بكار دبكو لولو من تنياك وانت خمل نكت لي دي زكاة الفطر كت تطهير ما مضى من التقصير لي دي زكاة الفطر كت fay ñëw di da fay ñëw di la fompal fay ñëw di la da fay ñëw di la raxasal ba mu set yi nga xamni gak gak yi nga amon ci wéru koor gi ibn abbas radiallahu anhu arda nee فرض رسول الله sallallahu الله عليه وسلم زكاة الفطر tuhratan للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين حديث بيكر حديث بويرلا إمام حاكم رحمه الله ويرل ويرلنكو ابن عباس نانا بي صلى الله عليه وسلم ندوال يالالي صلى الله عليه وسلم فرطالنا lii nga xam ni moom mooy muurum koor mu nekk tuhratan mu nekk tuhratan lissaimi mu nekk luy fóot ak di raxasal ki nga xam ni dafa woor lum koy fóotal ak lum koy raxasal mooy min al laghwi war rafas ci bépp wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw dina ko raxasal gàkk-gàkk ci wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ji nga xam ni defoon na ko moom aji woor ji wa tu'matan lil masaakin wa tu'matan lil masaakin ba pare it lii nga xam ni mooy muuru koor dafa ñëw nekk di indi akub xéewal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy masaakiin yi maanaam ñi nga xam ni dañoo seen loxo jotul seen gannaaw waaw daf leen di indil lekk daf leen di indil li nga xam ni mooy lekk ndax kiy génne zakatul fitr comme ñi xadis bi ñëwee ah tuumatan maanaam lu muy daf leen di prove daf leen di jox lekk ñan la koy jox lil masaakiin ñeel ñi nga xam ni ñoom ñooy miskin yi بنن توم بنيتل بموي ما الذي تخرج هذا الزكاة هذا الزكاة أنا لن لن يجنن أنا لن لن يجنن تي زكاة الفطر أنا لن لن يجنن تي زكاة الفطر لن يجنن تي زكاة الفطر موي الطعام الآدمي li nga xam ni moom la nit ñi di lekk donc bu ñu nee li nit ñi di lekk loolu génne nañ ci sippi nañ seppi nañ ci li nga xam ni moom la bàyyi ma di bàyyi ma yi di lekk génne nañ ci tamit ay yére ak leneen lu nuru loolu kon li ñuy génne ci muurum koor mooy at taamul aadami li nit ñi di lekk مما يكون غالب قوت أهل البلد تلولو نك موي لي اوب ليغا خامني موم لا وا دك بي دي لك لي اوب لي وا دك بي دي لك واو وانت خملني نك كلما كان الصنف افضل كلما كان اكثر اجرا خملني li gën ci li ñuy génne li gën ci li ñuy génne dafay yokk li nga xam ni moom mooy pay bi nit ki di am maanaam masalan li gën li gën li ñu li gën ci li ñuy lekk bu fekkee ni loolu lañu génne bu boobaa yow tuyaaba bi ngay am wala pay gi ngay am day tolloo ak li nga génne masalan bu dee dañuy génne par exemple ceeb ceeb nag la shakk ni am na ay variété am na ay qualité am na ay am na ceebu ceebu dijj ceeb bu sew ceebu mbay mi ceebu siyaam bu nangam ceebu nangam ak nangam donc mu am ceeb yoo xam ni ni ni mu gënalante noonee la pay bi di gënalante kon yow miy génne sa muurum koor boo bëggee sa tuyaa ba gën a yokk na nga génne li gën ci li nga xam ni moom lañuy génne kon li ñuy génne mooy ñam lañuy génne beneen tomb bi ci topp mooy هل يجوز إخراج الزكاة الفطر مالا ندخ دغن نجين خالص تي مورو كور ندخ دفاي دقن ندخ دينا دغن نجين خالص تي مورو كور الذي عليه جمهور العلماء أن الذي الزكاة الفطر la tujzi min almal li nga xam ne moom la mbooloo mu takkoo takkoo takku ci boroom xam-xam yi indi mooy liikat di muurum koor bu ko nit génnee ci xaalis kooku yàlla subhanahu wa taala du ko nangu ndax lan ndax haadihi ibaada sharaaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala jiha muayyan aw ala wasfin muayyan kon li ko waral mooy lii kat jaamu yàlla la boo xam ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf koo farataal ci anam bo xamni anam bu spécifique la daf ko faratal ci anam bo xamni anam bu distinct la kon li war fa yajibu كما kama أو شرعها رسول الله sallallahu alayhi wa sallam kon li mooy génne muurum koor ci niko ko yonent bi sallallahu alayhi wa tege ni ko yonent bi salaatu wa salaam rëdde ñu génnee ko noonu léegi moom yonent bi alayhi salaatu wa naka la ko tërale wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama qaal jàngoon nañu léegi ci xadiisu ibn abbas radiallahu anhu mu nu yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax mu ni ci wàllu muurum koor mu nekk tucmatan lil masaakiin saacan min tamar aw saacan min shaciir yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni lii nga xam ni moom mooy muurum koorkat day jox lekk maanaam dafay dafay dafay provide euh, lekk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy miskin yi mu daal leeral nag mu ni saan min tam min tamrin saa te dina ñëw incha allah ci lan mooy saa wala ñaata mooy saa ci tàndarma ak saa ci dugub wala lu ko nurul imaam ahmad rahimahullahu taala wa qaala imaam ahmad rahimahullah wa axsha an laa tujzi in kaana min almaal imaam ahmad rahimahullah dafa ni ida kaana min almaal imaam ahmad nee na man de ragal naa lool ki nga xam ni dafa joxe xaalis muurum koor yàlla bañ koo nangu mu ne ragal naa ki nga xam ni dafa joxe xaalis ngir muurum koor yàlla tabaaraka wa taala bañ koo nangu ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba muy digle la mu digle ba muy santaane la mu santaane mooy lan mooy nañ ko joxe lekk laa shakk amul sikki sàkk ni jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñoo fa pauvroon a ah, amoon nañu ajo ci xaalis ngir mën a defi leneen wala faj seen yeneen ajo wante bu fekkee ni problème ba fa nekkoon moo fi nekk tey jii ba tey bu boobaa ñoom lañu defoon ñun ba tey lool lañuy def ñoom lañu defoon fekk problème ba amoon ba tey amoon na ñoom lañu defoon ñun bu boobaa lool lañuy def ngir mën am cee pay ndax kat kenn umpalewu la ni am na ca jamono yooyu saxaaba yoo xam ne dañoo pauvroon te ku pauvre nag danga soxla xaalis wante moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy joxe ba muy waxe nañu ba muy digle ñu génne li nga xam ne mooy muurum koor la mu digle woon mooy nañ ko génne ci lii nga xam ni mooy dund lekk li doomu aadama di lekk léegi nag lan mooy miqdaaru saa lan mooy tolluwaay wala peese naka la ñuy maanaam ci wàllu peese ñaata mooy saa wala lan ñaata la ñuy génne ci zakatul fitr maanaam ñaata kilo wala ñaata pound lañuy génn ci zakatul fitr xamal ni taduuru ma bayna kilo wayni wa arbaa mia gram xamal ni li nga xam ni boo jëlee nattuwaay ci ceeb dafay tollu diggante ñaar deux kilo quatre cent grammes ci ceeb ila thalathi kilo kilogramme ba toll wala mën a toll diggante intervalle entre deux kilos quatre gramme grammes ba trois kilos te loolu nag boo koy natt ci pound dafay tolloo ak five point five pound all the way to six pound kon boo koy natt ci kilogramme maanaam kuy génne tey ceeb dafay génne diggante diggante kilo kilos quatre cent grammes ba trois diggante boobu lum ci génne baax na te jii boo doon convertir loolu ci pound dafay nekk five point five pound all the way to six pound per person ngir nit pour nit ku nekk Cheikh Ibn Baz rahimahullah dafa ni nit kiy génne na génne ci euh, mëtal ko trois kilo nga xam ni trois kilos yi moom boo ko génnee wér na ni génne nga sa muurum koor lépp nag loo xam ni maanaam euh, romb na ko yow danga am loolu mu nekk sadaqa maanaam da nga dana nekk euh, sarax boo xam ni teg nga ko ci génnewaale ko ci kon li nga xam ni moom lañuy wax moo gën mooy kuy génne alhamdulillah génneel fa intervalle ba jeexe muy trois kilo wala six pounds nga xam ni yow wóor na li ni génne nga li la waroon ba li ci tool li ci ci li ci ëpp ah, li ci li ci ruus loolu yàlla subhaanahu wa taala daf la koy bindal lii nga xam ni moom mooy mooy sarax léegi kon li ci topp tom bi ci topp mooy amma waxtu ixraaju zakaatul fitr ban waxtu lañu war a génne muurum koor muurum koor nag dafa am ñetti waxtu yoo xam ni moo ci nekk bi ci njëkk mooy waxtu wujub waxtu wi nga xam ni dafay war waxtu wi nga xam ni dafay war ñaareel bi mooy waqt fadila waxtu wi nga xam ne mooy waxtu wi gën mooy waxtu wi gën ñetteel ba mooy waxtu jawaaz waxtu wi nga xam ni boo ko ci génnee moom ah, am nga dinga am fay dinañ la fay maanaam waxtu woo xam ni boo ko ci génnee moom def nga loo xam ni lu lu la kenn ah, dul dul dul dul dul toppee la léegi buñ ko bëggee faram li nga xam ne mooy waxtu waxtu al waxtu wi nga xam ni dafay war ci jullit bi dafay war ci moom mu génne wala ñu génneel ko zakatul fitr loolu nag dafay dépendre ci li ñuy tuddee xurubu shams laylatul iid xurubu shams laylatul iid bis dep bis bu timis jotee ci guddi iid timis bu jotee ci guddi iid maanaam bu timis xasee jot ba ñu ni suba la korite bu boobaa foofu nag lañuy xool ndax dafa am wujub maanaam lu war la wala lu warul la masalan bu fekkee ne nit ki dafa tuub dafa tuub dugg ci lislaam te fekk ba muy tuub timis jotagul fekk ba muy ti ba muy tuub timis jotagul déjà rekk kooku dañ naan ko li des ci bis bi dafay def li ñuy tudde imsaak manam dotul lekkati dotul nanati wante du cageniol day tudd dafay woor de wante dafay bàyyi lekk bàyyi naan ngir ormal desitu bis bi kon nit ki bu tuubee laata timis di jot ci bis bu mujj ci weeru koor gi bu booba dafay war ci moom mu génne wala mu fay zakatul fitre wala ñu fayal koko dafay war ci moom bu boobaa mu fay zakatul fitr wala ñu fayal ko ko ndax nag kooku dina fay weeru koor wi loolu laaj la bu may laaj incha allahu tabaraka wa nañ ma tontu ci loolu ki nga xam ni dafa tuub ci bis bi mujj ci weeru koor laata timis di jot kooku li ñu jàng tey mooy dafay war ci moom mu fay zakatul fitre dafay war ci moom mu génne zakatul fitre comme ni ko jullit ñëpp di defe waa léegi ndax kooku fan yi mu woorul yépp ndax kooku dafay war ci moom mu fay bis yooyu waaw wala déet loolu moom mooy sama sama laaj bu ma samp tey wala xaleel bi nga xam ne dafa juddu dafa juddu dafa juddu laata timis di jot ci bis bi mujj ci weeru koor kooku moom bu juddoo dafay war ci moom dafay war ci moom zakatul fitr maanaam baatu wujub lay doon kooku dafay war ci moom mu ñu fayal ñu génneel ko muurum koor wante bu fekkee ni dafa juddu gannaaw timis dafa judd gannaaw timis loolu bu boobaa dootul nekk war wante dafay nekk min baabil istihbaab dafay nekk loo xam ni danañ ko sopp dana rafet ñu génneel ko muurum koor wante du nekk dafay war war gi kay mooy mu judd laata timis di jot ci bis bi mujj ci li nga xam ni moom mooy weeru koor naka noonu bu nit tuubee gannaaw timis ci bis bi mujj ci weeru koor ba ñu naan suba la tabas suba la korite ba ñu naan suba la korite moom mi ngi tuub gannaaw timis kooku bu boobaa du war ci moom mu génne li nga xam ni mooy muurum koor ñaareelu waxtu wi mooy waxtu fadila waxtu wi nga xam ni moo gën ci génne ko muurum koor ana ban waxtu mooy waxtu wi gën ci génne muurum koor waxtu woowu nag wa huwa ma bayna salaati alfajr ila salaati aliid mooy waxtu wi dox gannaaw julli fajar ba laata ñuy julli iid waxtu wi nga xam ni mooy maa bayna salaatil fajar gannaaw bu ñu jullee fajar ba keroog ñuy waaja julli li nga xam ni mooy salaatul iid di julli korite loolu waxtu woowu mooy waxtu wi gën ci génne ko azaka zakatul fitr muurum koor ndax kat noonee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama digle euh, beneen waxtu wi ñetteel bi mooy waxtu aljawaaz mooy période bi nga xam ni boo ci génnee zakatul fitre de dees la ko fay maanaam dinañ dinañ loolu danañ ko considéré comme zakatul fitre loolu mooy bi yawmin aw yawmayni qabla al iid loolu mooy fan wala ñaari fan laataa ñuy korite mooy fan wala ñaari fan laata ñuy korite boo ci génnee sa muurum koor loolu dagan na te dees na la ko fay comme ni nga xam ni noonee la ko cheikh cheikh ibn baaz rahimahullahu tabaraka wa taala moom xamal ni joxe lii nga xam ne mooy muurum koor gannaaw julli gannaaw julli korite ci loo xam ni nag amuloo ci benn ngànt te bu ñu nee ngànt fii mooy ngànt loo xam ne sharia d'accord na ci mathalan nit ki yëpp na euh, euh, muurum kooram ci otoom di dem julli ji pour bu rombee miskin joxe ko mu dem ba xelam génne ci kooku bu jullee ba pare xelam maanaam gisaat ni ah man de génneeku ma sama muuru koor kooku bu boobaa mën na ko génne ci waxtu woowu ba pare inchaa allahu tabaraka wa loolu dana konte ci moom ba tey muurum koor wala nit ki tamit xamul yëgul ni tey la korite yëgul ni tey la korite ba fekk julli nañu ba pare bu boobaa mën naa génne muurum kooram ndax ñàkk xama tax kon fàtte ak ñàkk xam loolu mën nañ cee bal ki nga xam ni dafa génne muuru kooram gannaaw julli gi mu des li ci mujj mooy kan lañu war a jox muurum koor ana kan lañu war a jox muurum koor boroom xam-xam yi dañuy wax ni ñi nga xam ni ñoom lañu ñu war a jox asaka mooy juróom-ñett ñi yàlla subhaanahu wa taala wax ni ñoom lañu ñu war a jox asaka boroom xam ñenn ci boroom xam-xam yi dañu ni ñooñee kenn ku ci nekk ci ñoom mën nañ laa jox muurum koor wante li gën a wér li gën a wér mooy li ibn taymiya ak ibn qayyim ak ñeneen ñu dul ñoom wax mooy ñii ñaar ñii di al fuqaraa والمساكين الفقراء والمساكين ندخ الفقراء موي كيغا خامني موم امول لن المساكين نك موي كيغا خامني موم امنا سلف امنا توتي وانت امول لومت ñaar ñooñu ñëpp mën nañoo am mën nañ leen a jox muurum koor ñaar ñooñu ñëpp mën nañ leen jox muurum koor xëy na la ca topp mooy ki nga xam ni moom mën naa jël muurum koor bu amee loo xam ni kat xuuta yow mihi am na lu ko doy lañ ko jox nañ ko lu ko ëpp sax faf kooku mën naa walbatiku moom di joxe joxewaat muurum koor léegi nag fan lañuy joxe muurum koor gi li gën li gën mooy nga joxe ko ci dëkk bi nga nekk li gën mooy nga joxe ko ci dëkk bi nga nekk lu dul ni nga ñàkk gis koo ko jox bu boobaa mën nga wàlli ci beneen dëkk walla nga wàlli ci beneen village ba nga xam ni mën na am foo xam ni ñii kat yelloo nañ ko mën nañ koo jot kon muurum koor nekk jaamu yàlla goo xam ne bu am solo la bu ñun ñëpp war a taxawee ci ni mu gën a rafete ak ci ni mu gën a dëppoowee ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale bu ñu topp nag xalaatu nit ñi ñi nga xam ne seen xel lañuy dawal wala seen xalaat lañuy dawal di wax naan ah, ah, koo xam ne dafa bëgg fay loi yéem nga koy jox ceeb koo xam ne dafa bëgg faju nga koy jox ceeb koo xam ne dafa bëgg jënd ah, nangama sàngam nga koy jox ceeb wante bu fekkee ni loolu amoon na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñoo xam ni dañoo amoon aajo ci xaalis wante li nga xam ni moom la waxoon digle woon nañ ko joxe moo doon ñam li doomu aadama di lekk te lii kat nekk na loo xam ne tey jii ah mën nañ cee natte li nga xam ni moom mooy pas-pasu doomu aadama bi ndax moom dafay dem ak xelam wala xelu nit ñi wala dafay dem ak li nga xam ni moom lañu ñu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyel ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu jéggal ñu suñu ay rëcc-rëcc ci weeru koor wi te xam leen ni walhamdulillah ba tey weeru koor wi walhamdulillah mi ngi fi jeexagul te góorgóorlu kat jeexagul li ñu naan su yoon wi eh, jeexul sul du jeex te yoon wi jeexagul kon nag nañu gën a waaxu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain